li ñuy mettitlu la lu ñuy naqarul ndax gisoon ne ci loolu la ñuy dem moo tax bi ñuy waaju ubbi campagne électorale bi ma waxtaane woon ak sénégalais yi waaye tamit waxtaan surtout ak ñi nga xamante ne ñoo soobu ci kujje politique bi ci euh, élection yi ñu nekk élection du lenn lu dul ku ne boo woloo sa xam-xam gëm ne askan wi déggal na la nga mën a am dal goo xamante ne mën nga dem fu la neex waxtaan ci sénégalais yépp te ñu bàyyi sénégalais yi nag bu bés ba jotee ñu tànn tamit ci dal sénégalais yi yàgg nañoo wane ne que am nañ matu bu élection jotee ñu dem ci dal ci jàmm dem wote tànn ku leen neex teg leen fi nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo que mu nekk présidence de la république wala mu nekk assemblée nationale wala mu nekk ci commune yi loolu nag homme politique yi responsable politique yi ñoo war a nekk à la hauteur de maturité peuple bi maanaam matug askan wi ñi nga xamante ne ñoo nag ci langue politique bi ñoo ko ñoo ci war a yëkkatiku ba egg ci fi nga xamante ne askan wi egg na ci waaye nag bu loolu weesoo dama yaakaar ne amul benn sénégalais boo xamante ne di nga wéet ndamoo ne dóor nga sa moroomu sénégalais ba gaañ ko wala sax ba def saafaan lu gën a lu gën a saafaano noonu kon ndam amul ci gaañ sa moroomu sénégalais même bu dee moom dafa gëm ne fii la bokk wala ci langue géey la bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaye ñun ñëpp tamit ci askan wi ñuy dem waxtane ji ak ñom te gëm na na nak ñi am programme am luñu waxtane ak askan gi pour convaincre len dal gi moy sen avantage waye du xulo yek xex yeeg fitna ji bi lolu xewé wona ministre de la justice mo ma rendre compte ma ko na yoon def liggéeyam quel que soit ñi nga xamantene fofu lañu fété sen responsabilité bu impliqué ci luñu def ni yoon na def liggéeyam waye yoon bu dé def liggéeyam bu mu ci and ak ben pression na ci andak dal def enquête ak dal ak tey bu mu wor ko ne ku ñu dara li nga def lañ la topé way amul lenn lo xamantene dañ la ko tegg te defuloo ko ñoo nangu ci rew mo xamne nit kel soit fu mu bok ak quelque soit ku mu andal ak quelque soit lu mu yaakar na moy dolem japp na ne mën na jog song sa morom kenn ku nekk ci langue politique bi def ko lo xamantene du mujjé fenn du mujjé fenn bobu mënul am ci rew mi ndax rew mi nak fi dox may wootewaat nag campagne bi des na ci ñi nga xamante ne ñoo nekk di battre campagne nañu def preuve de responsabilité nañu def preuve de responsabilité te xam ne Sénégal dafa am lenn loo xamante ne mooy suñu alal du or gi du pétrole gi du lenn lu doy suñu dal ak jàmm ji nga xamante ne moom la ñu xamee Sénégal yi te investisseurs yi ñu waxtaanal yépp que mu nekk Turquie wala mu nekk Arabie Saoudite li ñu leen jaay mooy Sénégal réew mu dal la te yenn saay sax balaa ñu leen koy wax ñoom ñoo koy souligner ne loolu dafay dalal seen xel na mën nañ jël seen koom dugal ko ci réew mi kon moom ñu nooy nangu échéance électorale ak bopp bu mu ti doon mu ànd ak fitna li ci des nag mooy woo naa ministre de l'intérieur ne ko mu def ay jéego ci sécurité convoi gën ci góorgóorlu gën a anticiper ci événement yi boo bu ko defee mu xool programme coalition yi fu ñu mën a ñàkk ñu bañ faa daje ñoom ñu liggéey seen liggéey ba loolu bañ faa am te na ci amaan ànd ak commandement territorial yëpp ak collaboration coopération directeur de campagne yi nga xamante ne ñoo nekk ci caravane liste yi di nekk di battre campagne ci réew mi